du bëgg a bon du soxor amul benn problème personnel entre man ak moom dafa di damaa war a sàmm sama der dafa di ngor ngor moo gën a foor bakkan réew mii ñu nekk avant diine di fi si ci ngor lañ daan àttewoo réew mii ñu nekk avant diine di fi si ci ngor lañ daan àtteewoo te ku jàng xam ni que bari na lu diine nangu ca ngor nanguwu ko donk ngor moo ëpp moo gën a ndaw Ousmane Sonko nag deseetu ko deseetu ko parce que ci yëfi boppam nee na ñun dañ koo bëgg a toroxal mu woo ay doomu jàmbur lu tax wootewul tey manifestation parce que jàpp na ni ko gardé na éligibilité léegi ñi ko toppoon di ko défendre ci loolu ñu yaakaar ni que li mu perte moo ëpp éligibilité li mu perte mënatu ko jënd fi may daanele mooy ñun def nañ appel mooy deuxième mi moo tax ma ni jeexagul beneen bi ci des dégg naa leen ñu naan xaalis xaalis yàlla dañoo teral te duñu dellu ginnaaw ci ñëw ñi ñëw doon ma laaj ndax mën naa dindi retirer sama plainte dama ne ko kooku dafa jàppoon ni man mën naa am ay problème parce que moom dafa am ay dafa am ay capacité yu ñeneen ñi amul ma ne ko man bi may xale moo tax xale looy def ci kanamam da ko def te di fàttaliku ni ko xale ngay yar man bi may am juróom benni at 1982 loo xam ni tey te ci samay mbokk samay waajur jàpp nañ ni fàtte na fàttalu fàttalikuwuma ko 82 dañu jàpp sama papa aéroport parce que dirigeant grève la woon temps yooyu bu sant Seck euh, kii kii Seck ca dëgg euh, non waaw fii Assane Seck papa yi ministre moo nekkoon moo nekkoon ministre des télécommunications et des transport ñu jàpp sam papa parce que dafa bokk ci ñu doon jiite grève temps yooyu boo déggee ambulance wala moto tombe mort da ngay fëgg say nopp ñu wax journal ni ko jàpp nañ Mbaye Niang syndicaliste à l'aéroport mi ngi ca kaab ba mu doon événement bu rëy Jurbel nit ñi di ko wax ba ma xamee sama maam la mu wax sama papa kaso ba ci laa xam ni àddina amul dara lu gën dëkk àdduna àddina amul dara lu gën ngor àddina amul dara lu gën maandu parce dafa dem fekk ko après la comprendre ni que sama papa moom problème am yëpp yëpp yëpp du doomam du du jabaram du xaritam du syndicat bi mooy yaayam nan lay gise mbir mi loolu moo nekkoon problème am sama maam egg ni ko bu fekkee dëggalatee fii deewal fii bul génn de na fa dee ñi la wóolu ba indil fi buñ la wóoluwaatee deewal ci lii man ci loolu lañ ma yar man loolu lañ ma yare lu dul dëgg rek du leneen donc loolu laa bëggoon leeral di wax ni que xaalis bi ñu ciy wax maître defe naa dinañ jël disposition yëpp pour que huissier bi bu affaire yi génnee rek ñu saisir këram xaalis bi dañuy laaj ñu yokk ko vingt-neuf lañ laaj démb dañuy laaj ñu yokk ko benn dërëm du dugg ci sama njaboot. benn dërëm du dugg ci ku ma ku yàlla wax ni que dama ko war a dimbali benn dërëm du ci dugg xaalis bi lépp lu ci ñëw dañ ko xaaj ñaari pàcc lii ci ndongo daara ya lii ci victime yi nga xam ni Ousmane Sonko moo ko créé ñi ci ñàkk seen bakkan ñi ci ñàkk seen bakkan ñi ci gaañu ak ñi ci lor donc lépp luñ ko mën a yokk rek nañ def la ca war tribunal yokk ko ñu joxe ko soxla wuñ ci ñaar dërëm moom la ngoram di jar ay daw ñun suñu ngor amul njëg parce que jàpp nañ ni ku ko jaay sax doo ko amaat moom la dignité moom moom lañ mën a jënd ci ay nëbbatu ñun jàpp nañ ni dee moo dee léegi ak sa ngor moo gën dund ci ñàkk ko ñu ngi sant ñëpp di jox kàddu gi maître El Hadj Diouf parce moom moo ci gën a mu wax nan lañuy ñuy waxtaan yi ak ñoom maître Boucar ak maître Olivier mais moom parti français bi après ñu xool. on va le faire en français. ok ok merci beaucoup bon euh, vos compatriotes ils demandent à ce qu'on puisse faire un peu du parti en français un résumé peut-être euh... ouais. donc merci nous euh, je voudrais rendre grâce à Dieu remercier l'ensemble de nos remercier l'ensemble de nos parents amis et sympathisants mention spéciale à mon épouse et Je voudrais remercier aussi particulièrement les avocats qui nous ont accompagnés dans ce processus. Je pense que nous, de par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous avons gagné. Nous parce que nous avons prouvé que M. Ousmane Sonko est un menteur. Aujourd'hui, il est établi par le tribunal correctionnel de Dakar que Ousmane Sonko est un menteur. Aujourd'hui, il est établi. S'il vous plaît, aujourd'hui, il est établi par le tribunal correctionnel de Dakar et devant le monde entier que Ousmane Sonko est un menteur. Il est établi qu'il pratique la diffamation, ce qui justifie notre capacité de dire aujourd'hui que M. Ousmane Sonko a utilisé l'échelle du mensonge pour aspirer au sommet. Je le rappelais tout à l'heure, il a commencé à l'Assemblée nationale. Sa première déclaration, maître, c'est de dire que les députés ne payent pas d'impôts. Pour un inspecteur des impôts et domaines qui a fait ans dans ce domaine et qui est à l'Assemblée nationale et qui affirme devant le peuple sénégalais que les députés ne payent pas d'impôts. Il n'y a que deux raisons. Soit il n'a pas lu son bulletin de salaire, soit il n'a jamais exercé son métier. Mais l'homme, l'homme a industrialisé le mensonge. L'homme a utilisé la calomnie, la diffamation pour monter les escaliers et liquider ses adversaires. Je vous avais dit que le dernier combat de Ousmane Sonko sera le combat avec Mambay Il a dit détenir un probable ou détenir un rapport de l'IGE qui m'aurait épinglé en tant que ministre de tutelle du programme national des domaines agricoles, nous l'avons défié devant le tribunal. Après trois renvois, Ousmane Sonko n'a pas produit des débuts de preuve pour un document qu'il disait détenir chez lui, qu'il aurait oublié à Saint-Louis entre-temps, ou à Ziguinchor, que quelqu'un aurait volé mais il ne l'a jamais produit. Et jusqu'à l'extinction du soleil, il ne va pas le produire. Ousmane Sonko a prouvé à travers ce procès qu'il n'est pas de bonne foi, qu'il n'a pas de dignité et que c'est un inculte. C'est un inculte parce que voilà un énarque qui a travaillé pendant ans, qui est incapable de comprendre que l'IGF, l'inspection générale des finances, ne peut pas épingler un ministre. Parce que tout simplement, l'IGF, l'inspection générale des finances, audite et vérifie des administrateurs de crédit et des ordonnateurs de dépenses. Et pourtant, il dit qu'il est énorme. J'ai eu à le dire, on m'a reproché ces termes. Mais je suis désolé. je l'ai répété, il continue à abrutir les cadres sénégalais, il continue à abrutir la jeunesse sénégalaise, il continue à abrutir nos valeurs et il est en train de détruire les tissus de notre société sur la base du mensonge aujourd'hui qui est qualifié par le tribunal de Dakar par cette diffamation. Donc, vous avez suivi le processus. Il a voulu faire croire au monde entier que c'est un procès politique qui tente à le rendre éligible. Ce n'était pas notre objectif. Notre objectif, c'était de démentir d'abord ses propos. Notre objectif, c'était de prouver qu'aucun rapport ne, nous, ne peut nous être reproché. En cours de route, il a tenté de faire croire aux gens que Même s'il n'y a pas de rapport, il y a eu de faute de gestion. Mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui n'est pas gestionnaire des fautes de gestion. Moi, je ne suis pas gestionnaire. Je ne suis ni administrateur de crédit, je ne suis pas le coordonnateur. Et vous osez, en tant qu'énarque, dire devant des milliers de Sénégalais et à la face du monde que nous, nous avons des problèmes Nous avons eu à commettre des fautes de gestion. Comment est-ce qu'un énarque peut accuser un ministre de détourner des fonds, mais qu'il n'a pas à sa gestion Comment est-ce qu'un inspecteur des domaines qui a fait 15 ans au ministre des Finances peut regarder un autre cadre de sa trempe et lui dire de pareilles choses Il n'y a que deux possibilités. Il est de mauvaise foi ou c'est un inculte, pour lui, je pense qu'il est de mauvaise foi. En refusant de produire ou même de tenter de se défendre dignement, il a fini par prouver qu'il n'avait pas de dignité. En embarquant les populations qui sont avec lui dans son propre combat, il a fini par prouver qu'il n'a pas d'honneur Parce que moi, Mambaïna, si j'entame un combat qui me lie à un autre homme, je pas besoin de manipuler ou d'appeler au secours des gens qui, pour des raisons de faiblesse, vous supportent et sont prêts à vous suivre dans vos histoires.